yaroo ci gox màggee ci gox ah ñooñu dañuy am yaakaar ci yow lépp loo xamante ne yàlla defal na la ko nga yor ko ci biti wala feneen da nga ko war a indi ci sa gox ndax ñoom ñoo ko moom ñoom nga ko yoreel parce que boo màggee fenn nga fekk fa baax li nga am bul fàtte jamais am na fenn foo jóge kon nag ñun dañoo am principe te ci loolu la ñu yoree man sama papa daf ma yar ci benn mbir del bokk ak say mbokk del bokk ak say mbokk nit da ngay bëri yërmande mën na jàppale mën a dimbali àdduna doo xalaat sa bopp rek naan da ngay jéem a xool nooy dencee sa yëf nooy dese sa alal noo koy dencee fenn déet li mu ñu ñaan mooy que lépp lu leen yàlla jox lépp lu leen yàlla dénk xam nañ ne que la moomoo leen ko parce que daf ñu doon wax tout le temps la tax ñu lay jox c'est parce que kii yaakaar ci yow wërsëgam mu ngi ci yow moo tax yàlla di la ko jox parce que su wërsëgam nekkul woon ci yow yàlla du la ko jox kii yaakaar ci yow wërsëg bi ci yow la koy yàlla di jaarale kon dala la koy jox pour nga mun ko koo jox ah, kon nag loolu dañ ciy sant yàlla tey bu ñu demee ba nga xamante ne partagé nañu lu ñu amoon pour mun a construire ah, jàkka ji ginnaaw euh, li nga xamante ne mooy euh, projet jàkka ji ak na ndax euh, foofu ngeen di limité wu ndax foofu ngeen di limité wu wala non ñun non ñun mënuñu limité wu fii. ñun mënuñu limité wu fii ñun ci liggéey bi rek la ñuy nekk euh, du ñu arrêté euh, mënta nekk donc ñun dañoo nekk fii yàlla def ñu ñu nekk ay doomu gox bi kon nag euh, tànk yàlla mu ñuy jox kàttan rek ñun suñu kattan dañ koy jox gox bi incha ah, allah. ndax ñax ngeen ndaw ñi pour ñu xamante ne mooy barab waaw loolu moom waxtaan ci ak ñoom lu baax a baax a baax a baax te vraiment dañuy sant yàlla ndax yëfi ñoom. ñoom sax ñooñu ci gën a sawar ñoom ñooñu ko gën a bëgg ndax euh, ku ci nekk ci ñoom vraiment ñoom fii la ñuy kon nag man saa yu ma ñëwee muy samedi muy dimanche wala su ma wàccee jaar fii dama leen di fekk ñu nekk ci liggéey kon ñoom ci seen jëmi bopp ñooñu gën a soxla sax jàkk ji maanaam kon nag ñoom tey jii danañ leen ñaax gën leen ñaax waaye ñoom ci seen jëmi bopp ñooñu gën a en tout cas motivé pour teel ñu jàkk ji su ma la wonoon rek ci ay message yu ma jot ci jeunes yi ay ay bind ay message yu ñu yónnee ay ay ay audio yu ñu yónnee ci xol bu sedd jóge ci jeunes yi fii nii mënu ma la wax ñaata la toll kon nag dama leen di tont rek tout temps yëfi seen yëpp la yéen a ko moom nañ ci sant yàlla bu baax. d'abord delloo suñu bopp ci suñu borom ndax ndaw yi génn ngir dem uti gaal ngir jéggi ko uti koom seen wërsëg lañu ñu bëgg a jëli waaye bu ñu bàyyee xel alquran loolu du am yàlla moo wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha waaye wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitaabin mubin yàlla nee na amul kenn kuy dox ci kaw suuf si lu dugut ni man yàlla maa yor sa wërsëg benn ñaareel ba yàlla nee na xam naa kañ laa la koy jox ak ban àpp lay yem nee na lii yëpp nag ñu ko teg ci ay këyit yu leer kon bu fekkoon ndaw ñi xam nañu aaya boobu dëgg-dëgg du jël ay gaal di ko jéggi ngir dem bitim réew ngir sàkku wërsëg ndax wërsëg gi seen yitte yaru ko waaye suñu boroom moo ko yar kon li ma leen di dénk en tant ndaw mooy ñoom ñëpp ñu xam ni wërsëg ci loxoy suñu boroom la nekk te kenn ku nekk bés bu nekk la yàlla wërsëgal ci yow saa yoo xëyee di ko am kon nag am ko ci anam bu rafet dafay li gën ndax jafe-jafe yi dëgg-dëgg metti woon benn rek laa ciy tudd walla ñaar imam xaali ba mi nga xamante ni man moom laa remplacé bi mu génnee àdduna daan jullee fii waxtu juróom moo mokkoom yeeg njabootam dëkkandoo yi bi ñu ñëwee dañu gis ni juma jàkka ji dafa xat xataay bu métti loolu moo nekkoon sabab bi tax ñu yénu ko fii yóbbu ko jumaa caaray kaw kon jàkka ji xataayam ak manquement matériel yi fi nekkoon dëgg-dëgg jéggi woon day jéggi dayoo koo xamante ni mënu si ko woon wax gis nga tey fii ngeen taxaw nii dafa génnoon ci fenêtre kër jàmbur ñu daan wax wala ñuy def ay bruit da nga ko daan dégg sax en tant que imam ak ak képp koo xam yaa ngi yaa ngi julli ci biir jàkka ji mu nekkoon ay gàllankoor yoo xam ne daan tax sax duñu mën a teewlu mais alhamdulilahi rabbil alamin ak ci taxawaayu président Oumar Yaya saw wax dëgg yàlla saafara si dëgg-dëgg mot na ku ñeme rek dañ laa Eh, Seydina Omar mii di Omar yaa eh, suñu xarit suñu doomu ndey hmm? daal di ñuy bett ak enveloppe eh, cinq millions ñu tàmbalee liggéey bi macha allah depuis bañ ko tàmbalee ba léegi taxawul moom it mu nekkoon koo xam ne ku xër ci liggéey ñu dañ ko doon yërëm sax mais moom di yërëm boppam dañuy nag sant nag équipe bi nga xam ne moom laa àndaloon di liggéey liggéey ma ci tàmbalee moom moo nekkoon mason ma ànd ak moom di liggéey liggéey bi ci liggéey bu rafet ak euh, Ibrahima Ndoye mu nekkoon coffreur bi li li fi rafet yëpp moom la donc euh, moom ak Baye Balla ñu ànd di coffre di liggéey di coffre di liggéey bu ko defee bu ñu nee équipe bi yëpp rek bu ñu waxee Ndoye liggéey bi daal vraiment kontaan nañ si lool lool lool ndax Omar euh, li mu ci def rek def na ci plus de cinquante million loolu man mii maa koy seede parce que lépp envoyé yëpp si man la doon jaar ku mu mën a yónnee xaalis da koy capturer envoyé ma ko man ak Ndoye donc Ndoye tamit am na ci part sociale moom sax bëggul ko gërëm mais fag ñu gërëm ko donc daal kontaan nañu lool ci gàttal daal wax ji mi ngi noonu jërë ngeen jëm du ñu fàtte tamit euh, son excellence Amadou Hott ndax liggéey bi moom moo ko tàmbali def na ci alal ju bari moom moo def fondation yi te xamagul ne liggéey ni fondation dem na fondation yu mucc ayib demoon na ba ñu arrangé quelques mille nii fii ñu ko fekkoon mu nekk lendo donc ñun ñoo yeggal yi euh, poto yi poto carré la woon te ñu def ko rond ci xëru Baye Balla moo santaane nañ ko def karul pot euh, poto rond moo tax euh, moo waral taar